tourné waat ko defaat ni tànk tourné waat ko nii <laughs> lii moo xewoon ci saison 1 ba ak kati tamit sama waa ay sey bégee naa leen j'espère que yéen si jàmm bu baax a baax séeri nante yi waaye commencé te séeri nante yi waaye commencé man Fallou ma cee bañ a def vidéo muy séeri cœur brisé séeri piscine bi Serigne Ndante la sama gars yi ba la vidéo di commencé mais si demee la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen si war si bet sama promo code 21 avril ça veut dire nga bu ni 156 000 francs lien bi naa ko def si commentaire sama gars yi démb FM Prod dafa dugal benn bande annonce cœur brisé dama gis notification bi rek na ko cabax parce que dama kontaan parce que série bi suñu série la ñun nan di tey ñu gis Massamba tëmb ci piscine bi nii comme moom mooy maître nageur sama gars yi waaw votre maître nageur national est de retour international taxawal samba bul waxati nageur national de waxal nageur international parce que sa naaj yi yegg na fii États-Unis kon del wax international. lu nekk nag dégg naa ko daaw dégg naa piscine man aquaman pool man Alvin Johnson sax dégg naa ko mais nag je vous comprends hein. surtout vous les filles xam naa ni boo leen sañoon maak yéen ci ndox bi góor yàlla yi moom xam naa ni dañu siisu c'est normal te xam naa ni sama dugg prison nag seen loxo génnu ci mais na leen leer ne piscine bi lay toxal ci prison bi di sank ci xale yi te doo leen ci mën dara. neex na nag nee na piscine bi lay indi ci prison bi di sang ci xale yi te ñun du ci mën dara ok yow bi nga nee bay seet ci série bi di sang ci xale yi te ñun mënuñ ci dara kon yow boo nee da nga indi piscine bi ci biir kii bi rek prison bi duñ ci mën dara rek garaaw li yeggali am problème. dama leen di fàttali ce qui s'est passé dans la saison 1 si vous voulez ah si vous voulez pas aussi. baal ma dimbali leen rek rappeler leen ce qui s'est passé. mais bu leen ko tàmmal ok alors. let's go. taxawal man maa leen di fàttali la moo amoon saison 1 bi man maa leen koy fàttali tey taxaw leen ma fàttali leen saison 1 bi ci la ci la kii doon sangee Rose ci la doon sangee leena sangu yu garaaw yi di ko ajak di ko ajak di ko dugal ci tànkam beeg tourné waat ko kott ko fii ci biir usine bi. ba tax nit ñi bëgg série bi <laughs> xaaral ma indiwaat leen loolu li saison 1 la woon ci la ko doon ci bisim bi fa tabarkàlla kenn du la weccoo béy bi ngalam gis nga si la ko ajee li saison un la nag <laughs> rof na tànkam yi fii te ci série bi la rek lii moo xewoon ci saison un bi gën ngeen loxo bi fu ko dugal mooma lay mooma lal bi yaa ko damm gis ngeen ci la defee nii te dal sa mool ne la wangal ñu tourné waat ko defaat ni tànk tourné waat xëccaat ko nii <laughs> lii moo xewoon ci saison un ba kat yi tamit ci la doon xalaatee exam ba mu ñëw toog ci kawam tatouage am bi di feeñ tatouage boobu noonu defoon coow dama leen koy wanaat gis ngeen xool leen ci la ñëwee toog del machine bi teg toog ci kawam ci la tatouage bi feeñee nii gis li lépp ci saison un la amoon ay laay la naa saison deux bi nar naa toj

Mas, avec tout ce qu'il a fait pour moi, je ne suis même pas capable de le sortir de là-bas. Il est très affecté par la situation de son ami. tellement. Ah, Mas puisse sortir. Sinon, les deux personnes se permettront jamais, jamais d'être heureux. Je que qui m'a prison Santaz les donne quoi Madame gars pour pour quoi. saa bu naqar dalee géej mu sàmbaraax te bu géej sàmbaraaxee lépp lay sànni ci biti muy lu baax walla lu bon tax saison 2 bi ça promet ça promet ñu demoon dellu si waaw yéen sangu ci piscine yi nii suñ sañoon dañ leen ko dañ leen ñaan syndicat bi ñoo ñu ñee nañ sangu ci piscine yi nii bu mënoon bu ko mënoon di am chaque épisode épisode bu nekk ñu mën di sang benn xale ci piscine bi dina leen neex ma naa leen ko jottali waa Even Prod dégg ngeen. ñu juumoon rëccu. ay man ni fan laa koy waxee. kii moom Abdoulaye waa ji nii kii na xale yëpp ci série bi série bi Abdoulaye xaw ma ku mu bàyyiwul mais Abdoulaye kii na xale yëpp. juum naa de. après kii dafa mel ni dafa kii ak Abdoulaye après mu réccu def live di jooy mu woo waa ji di ko wax. mais yow soxna waxu woon ko bàyyi nga def live man du ma la nëbb mais saa yi dama ma bett. c'est vrai mais. jarul dara. pour man nit koo bëgg ak lu mënti xew. bul ko musa fen. ñu jaxasoo woon géngee ko. dara gënul soof célibataire. ñu naan góor du projet dañ maa laajul rek. te doo foowee kii tuuti. yaa yor caabi bi te ku la neex moo fiy jaar. yaa yor caabi bi te ku la neex moo fiy jaar. dama lay remercier ci li ma convaincre ñu ñëwaat ci dëkk la daawul fii. ah booy affaire bi fii la. Hmm. xanaa xamoon noos balaa neex sa dëkk. noos balaa neex sa dëkk. ça promet lii imagine toi Fallou mu dund bu am xaalis nekk États-Unis bi am lépp lu mu bëgg nar a dellu Sénégal nar a noos <laughs> loolu nar ngeen gis lu garaaw. dundub jën daal dañuy dab. ku mën sa morom rek warax. xam nga man la moo ma jaaxal nan la Ramatulaay mën a bàyyi gentleman mel ni yow muy dem avec son gars là bu lewet boobu. bis boo xamee ni jigéen di xalaatee bindal téere. boo xamee ni jigéen di xalaatee bindal téere kenn mënul xam ne jigéen di xalaatee. gars yi nee nañ dangaa ay gaaf ndax nee nañ Massamba Fall de bi mu nekkee kaso ba léegi. góor yi daw la. ma dem ba yow kañ nga ñëw Sénégal bi mu indi. wat bopp bi tent ko. pour forward la def je revenais pour toi. non. Il doy wax ak c'est ton ex-mari. cet imbécile là il t'a touché. eh looy def nii. li xam te miin ko ci man xam nga xamoo buur saay na wala ni buur ñuus na maamam. c'est que fait. nag dafa mel tu amul sens mbëggeel quoi sens mbëggeel ku bëgg rek def ko dara elle n'a rien fait votre avocat. lâche-moi nii daa mel ni tamit. yow yaa doomu xaram tooyutuma saafatuma. ah. neexatuma. je n'en peux plus d'être comme un meuble dans cette maison. dehors tout le monde me gagne sauf toi. bébé comment on la gagne si mbedd mi man Chamsidine ay dara dragon pour mag bi ku fay safara bi nek sama xol oh. wala sama xolu ndaama

taatu jabaru jàmbur kenn du ko teg AS. eh même sous molé ii. je t'en supplie mon Dieu. la flamme que tu as allumée dans nos cœurs ne permet pas qu'elle s'éteigne. waa léegi wax leen ma foo leen bokk fay wala ni taalaat mbëggeel def len sen choix. ngeen tamit ñiy fay wala ñiy taalaat mbëggeel fan ngeen bokk en effet Ablés na ban annonce saison 2 bi ça promet. kon kër brisé sama gars yi ñëpp xaar xam nga ñu xaar ko ñu seetaan noo ko yaa ba a xam sama gars yi bu leen bu fàttee tamit euh, vlog yi ngeen moo wax sur Snap danaa koy def bu gars yi di génne danaa jël ay vlog mu dugal ko fii def ay vlog yu garaaw kon xaar leen abonné leen ngeen def notification bi déggee